bu metti yoo xam ne ni ñu ko dundee ak dara ji fi tuuru wax dëgg yàlla xel mënu ko nangu benn diine mënu koo nangu donte xam nañ ni aw xeet du ñàkk léeg-léeg ay problème am ay yëngu-yëngu am fa waaye warul àgg ba ñuy dàqiwante ci mbedd mi ay bakkan tuuru ci lu bari ci alal yi réew mi yàqu ci loolu nag li mu jur ci ay deret yu tuuru li mu jur ci yàq ay alal yoo xam ne réew mee ko moom euh, yàq deru Sénégal ci biti ci sous-région bi ak lu ko weesu moo tax ñu jóg taxaw ci tuuru Sénégal yépp ci ñi ko composé ñëpp di wax ci turu yi nga xam ne ñoo amoon initiative bi ñëpp di wax ne ñun laa d'accord ci lépp luy jur fitna ak fu mu mën a bàyyeekoo d'accord ñu ci dal ci kaw kilifay diine yi d'accord ñu ci lépp loo xam ne daf leen di gàkkal wala muy wax lu ñaaw ci seen der bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñoo signé euh, déclaration bi ñu ngi jëmale ci réew mi kàddu yi di njëkk a wax ak citoyen yëpp na bëgg sa réew di bëgg réew mi jëm kanam di xalaat avenir am ak lu koy defar loolu daf ñoo war ñun ñëpp kenn ku ne dañ war a bay sawaar xar sa tànk du tubooy ñaareel ba mooy ñu ngi jëmale suñu kàddu ci kilifay diine yëpp ak sunu kilifa yi nga xam ne am nañ ay ndomb tànk ci réew mi di leen fàttali seen réew seen seen rôle bi ñu leen xamee ci histoire Sénégal ci taxaw ci lépp loo xam ne mën naa aar société bi ci ay euh, crise ñu ngi leen fàttali seen rôle boobu di wax ak jeunesse bi ne lépp loo xam ne dafa yàq réew mi ñoom dañ ko war a moytu ndax seen ëllëg la ñuy yàq moo xam yëg nañ ko walla yëguñ ko di wax ne li fi xewoon képp koo xam ne participé ci ak ku mën a doon ak loo ci participé nu mën a doon ñu ngi lay wax ne population Sénégal moom loola moom d'accorduñ ci ndax wàcc fi ñu waroon a jaar la te ñu ngi ñaan loolu bu mu amati mukk di wax ñi nga xam ne ñooy utiliser réseaux sociaux yi ngir tas loo xam ne dafay jur ak mbañeel loo xam ne dafay jur ak noonoo loo xam ne dafay yàq di jur fitna ñu leen di wax ne loolu daal nañ ko moytu kenn ku koy def ak foo mën a euh, jëm loolu bi ligne rouge la ci suñu réew na nga fexe ba bu ko jéggi di wax politiciens yi ak fu ñu mën a bokk ak euh, ligne bu ñu mën a féetee ñu ngi leen di wax ne nañu réviser waat seen bopp kenn ku ne na xoolaat boppam kenn ku ne na xool luy boole nit ñi te bañ leen a tàqale kenn ku ne na xool stabilité Sénégal ku ne na xool jàmmi Sénégal xam ne loolu moo féetee lépp kaw ñu féetale ku kaw kenn ku ci nekk di jouer boo xam ne lépp loo xam ne mooy tax jàmm am fi ñu mën koo def Sénégalais yi mën a bañ lépp lu uteeg loolu ñu ngi wax ak presse bi ak képp koo xam ne ñu ngi lay may occasion nga taxaw fenn wax ne leen dañu gën a yëg seen responsabilité di yëkkati kàddu dëgg di yëkkati kàddu guy rafetal di yëkkati kàddu guy tabax Sénégal bañ koo màbb ñu ngi wax tam presse internationale bi neen ñun Sénégal day dañoo ràbbaloo dañoo jàppaloo benn bopp la kenn mënu koo xaaral xar ñaar suñu ko xamul nañu ñëw ñu wax leen ko ñu jàngal leen ko waaye lépp loo xam ne dafay yàq der biti deru Sénégal ci biti wax dëgg yàlla bu ñu exploité benn mbir mu fi xewoon pour taqal Sénégal ak gàkkal ko euh, ñu ngi euh, ñu ngi magnifier bu baax li nga xam ne moom le président de la bu def ci wax ne du def troisième mandat loolu dafay waane fi mu toll moom ci yëg responsabilité fi mu toll moom ci wàllu politique ci euh, rawatina ci jaww ji ñu toll nga xam ne bi mu ko waxee sotti na ndox ci li doon xew Sénégal yépp ba ak jàmm am fi ak dal am fi ci wàllu politique ak wàllu yu ak wàllu yu yépp loolu nag mooy tax ñi ci des mën a jot seen àq incha allahu taala ci anam ga mu gën a rafetee ñu ngi jëmale sunu kàddu di woo état di ko fàttali rôlam bi nga xam ne moom la war a joué ci euh, sécurité réew mi sécurité bien yi sécurité li nga xam ne mooy nit ñi ak itam euh, euh, lépp loo xam ne moo fi nekk ci ay instance mu war ko wattu toppatoo ko incha allahu taala ba mu yàqu di jeexale li yonent sa sam waxoon ne ki nga xam ne mu ngi taxaw fi mu war a taxaw fi yàlla ni yem leen fi ak ki ko dépassé mu ngi mel ñoo xam ne dañoo bokk génn gaal gaal gi am kal ci kaw am ci suuf ñi ci suuf nu mënuñoo jot ci ndox ñu naan loolu dañoo yéeg ci kaw jot ci ndox mi ñu ne buñ bënnoon gaal gi rek ndox mi dina ball ñu dal di naan buñ leen seetaanee ñu bënn gaal gi ñëpp lap suñ téye seen loxo ñëpp mucc kon Sénégal ñun ñëpp dañoo war a ànd téye ci loxo képp kuy yàq ngir ñëpp mucc wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci turu kuréel gi nga xam ne moo yëkkati affaire bi ngànk ko mbir mi ngànk ko ci lay waxee ci njëlbeen gi la waroon a jël kàddu waaye xat-xat moo tax ma mujjee ko wax ni ma koy waxee léegi bi ci jiit ñu ngi leen di gërëm di leen dalal kilifa yi bi toog di leen sargal jox leen seen wàccuwaay. wàcce leen seen wàccuwaay waaye tamit di leen euh, massawu coono ci xat-xatu jamono jóg bàyyi seen yitte ñëw ba teewee jataay bi ñu ngi leen di masawu coono ci loolu di leen ñaanal yàlla yàlla bind leen tiyaaba ci yéegu yooyu beneen bi ñu ngi jéggalu ci euh, yéex a tàmbali gi ak yi nga xam ne ay desan yi am na ci liggéey bi mu utee ak niñ ko foogee woon ak niñ ko sumbee woon am na nag li nga xam ne moo ko waral lu baree bare jërul ñu koy baamtu fii am na lu ci waxoon sànq beneen tomb bi nga xam ne bëggoon nañ ko leeral te mu am solo lool mooy mbir mi nga xam ne ñoo ci lañu nekk nii fan la tàmbale fi mu tàmbalee ci xolu bépp sénégalais bu gëm réew mi war naa dal bépp sénégalais boo xam ne bi bëgg naa yeewu yëngatu am lu mu indil askan bi bi nga xam ne yëngu-yëngu am na ci réew mi mu nekkal ñu fitna toog sa biir kër ñeme woo génn mënoo bàyyi sa doom mu jàngi sa oto ba wóorul ndax toj nañ ko wala tojuñ ko sa boutique ba mucc na wala muccul teg ca ci bitim réew réew mi ñu xamee woon teraanga ak dal ak ànd ak bëggante ak soppante loolu tàmbalee soppeeku yëg-yëg boobu bi mu juddoo ci ay xol ay góor ak jigéen ci fu nekk ci biir réew mi la am ñu wootante ne ko jot na ñu dégg beneen kàddu bu dul kàddu rek bu ñagas kàddu nañu yàq nañu toj nañu damm nañu dóor nañu tuur deret kàddu yooyu bi ñuy jógee sottante xalaat ci loolu la dem seeti ay kilifa ndax réew mi dafa am ay kilifa kilifa yi nga xam ne liñ leen xamee mooy dal ak defar bokk na ki ñu njëkk ñi ñu njëkk seeti Thierno Madani Tall mu rafet lu ko ànd ci waaye dëgëral xalaat ne ko nañu yaatal woote woowu fekk ñi ñëw ci moom tamit xalaat boobu la ñu indaale woon dañu dem ci këru diine yëpp kuréel yi nga xam ne ñoo fi liggéey l'islam ñu tuddee na ay association islamique nañ leen dem seeti lu ñuy tuddee société civile nañ leen dem seeti ñi nga xam ne ay personnalité lañu nekk ci dëkk bi am fi bi am fi cër kuñ ci mën a egg ci moom nañu egg ci moom wala jokkook moom loolu bi mu juddoo xalaat bi law ba egg foofu kuñ ci mosoon a seeti walla wax ak moom ànd na ci waaye comme na ma Madane lañ ko njëkkoon a jottali ñu jël këram di fa daje ay daje yu doy yu ñu sottante xalaat ban anam ban jamono ni ñu koy defee ban xalaat wax ji ni muy tëddee yooyu yëpp ñu nase ko foofu mu jeex mën na am loolu ñu ko doon defee këru Ceerno Madani ñu koy fekk foofu mu ñuy dalal di ànd ak ñun di ñu dañu di da dal di euh, euh, gën a encouragé moo tax yenn ñi foog ne Ceerno Madani moo yëkkati kàddoo waaye kàddu bi kàddu ñëpp la képp nga xam ne jàmm réew mi ak ëllëgu réew mi ak mucc askan bi itteel na la jàpp nañ ne yaa yëkkati kàddu bi kon foofu mbir suñu amee rek am ku jiite wala am ku ñu teg ci kanam wala ñu wax ci turam loolu moo ko indi waaye jataay bii tey xëyma bi tey kàddu bii tey kaddu ñëpp la képp nga xam ne jàmm réew mi ak mucc réew mi itteel na la kaddu gi sa kaddu la kon loolu lañu bëggoon ñu leeral ñu ngi gërëm comité bi nga xam ne ñoo doon waxtaane ci loolu euh, ci wàllu organisation mobilisation ci wàllu scientifique ci wàllu euh, communication ak contact ak ñëpp rawatina sunu mbokk yi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi li ñu jot a jàpp jottali ak ñi teewa seen teewaay yu tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf mbokk yi. Euh, nuyoo bi nag maa ngi koy teg ci loxo Thierno Macky Tall bu suñu bàyyi Thierno Mountaga Tall li tax mooy suñu daje bi Thierno Madani. moo ko nasoon ci niñ ko yëgee yónnee ci ñun yónnee ci grand imam de Dakar ca fan yi jiitu woon Tabaski mu xat mu dàq ko ba tey kon itte boobu mu amoon ba muy tàmbali am ñoo xam ne dañ ko ci gunge wéyal kook moom muy comité d'initiative bi ci imam Mbaye Niang El Hadj Ba Cheikh Ahmed Tidiane Talla ginnaaw Amadou Kane ñëw waxtaan ci ñun ñu rafetlu ko bu baax a baax a baax a baax ndax foo xam ne fii bërëb boo xam ne fii da koy fay jullee iid béréb boo xam ne da koy fay jullee àjjuma donte dañ fay liggéey muy mosquée omarienne kon waroon nañ faa mën a def lii te du yàq dara mais mu tànn ñëw ne nañ ko def grande mosquée de Dakar woo kilifa yi ñu fi lim yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk dëkk ba nga jóge yéene ji nga am ak itti beeg pas-pas ba ñëw teew fii yàlla na suñu borom bi tabaaraka wa taala fay ñu ko ay yiwu ak i tuyaaba di wax ne nag Thierno Madani li mu woote lu mu donn la ñu bokkoo ko dund ak i waajuram am na ñu bari ñu xam am na ñu ko xam ñàkk a xam wante waajuram Thierno Mountaga radiyallahu taala anhu lu mas a yëngatu ci réew mi da taxaw ci lu fés ak lu fésul Thierno Seydou Nourou moom waxaalewuñu ko parce que lu jiitu indépendance bi la ba indépendance bi am ba réew mi taxaw masu cee génne waxam masu cee génne di wax ak kilifa yi kon tey su yàlla defee mu am ay association islamique am ay conseil des daara am yaayu daara yi ñoo ñu ñëpp yaatal mbir mi ñëw ci lu mel nii def ko fii ci ndakaaru ñun dañuy kontaan ndax ndakaaru kat nañu bàyyi xel lenn buñ doon wàññi ñi fi fekk baax ak ñi fi baax fekk ak ay naqare taxali ñi fi fekk baax ak ñi fi baax fekk kenn mun leen taxali benn lañu kon libu yi ak ñi fi bokkal dëkkal ba tax Thierno Mountaga di wax na ñooy seeni njaatige dafa dem ba jaxasu ci deret kon bu ñu wootee fii ne dañuy wootee jàmm dina neex a dégg te nit ñi dañ ci sawar ndax dafa ay mbir yoo xam ne su la dalulee dalul sa mbokk dalul koo xam dangay foog ne ay léeb la wante deux mille vingt et un ak léegi li fi am ci ay fitna ñu koy wax ci tubaab ay émeute am fi ay jàmmarloo yu bari dama wax ne Sénégal yi amul kenn koo xam ne sa mbokk am gaañuwu ci wala alam yàquwu ci ñooñu nag tey gëm nañu ne ay yi daan gis ci télévision ci yeneen dëkk mën naa am fii kon nag bu ko ñëpp xamee kon ni nga xam ne imam Aliou Moussa Diagne wax na ko ñaan jàmm lenn la wante dox ko wax ko leneen la koo xam ne jullit nga ni ñun boo yewee julli fajar ñaan lu ñu musal sa njaboot musal la lu lay wërsëgal dama ne war nañoo mën a daje nag ñaanal réew kon bu dajee ci bisu tey di le 15 juillet li nga xam ne moom mooy lu wér mooy ñi ñu ci mën a dimbali ba lii ñuy def tas ci àddina bi ak nu ñu ko mën a tënkee mooy ñii toog yor réseau sociaux yi ñii toog yor télévision yi ñii toog yor rajo yi fa seen wax mën a yegg astafurlaa fa ngeen mën a jottali su wax ji ba mu egg fa wane fay image yi suñu nettali kese mënu ko kon da ngeen am taxawaay ci réew mi ngeen nag war a di segg li mën a dem teey li mënul dem ndax olof yi dañuy wax ne nettali xeex ak nettali xuloo yeesal xuloo la ak yeesal xeex kon yéen am ngeen taxawaay boo xam ne ni ñu ko yéenee yéen ñu ci ëpp solo fuuf parce que bu ba yéen ñëpp boo leen tëjee seen caméra yi fey seen rajo yi ñu ñi kenn ku nekk boo demee sa kër wala sa grand place soo amee grand place ñaari nit wala ñett nga koy nettali te bu la bëggoon seen réseaux sociaux yi àddina yëpp jot ci kon nag yéen am ngeen taxawaay boo xam ne war ngeen ko taxaw bi ci des mooy li nga xam ne waxtaane nañ ko mooy ñu fexe bii foog naa tey mooy guléet ñu woote lu mel nii lii nag foog ñu saxal ko ay am. ñàkk ay am tiit am bañu a tiit am fitna am ñàkk fit am fitna am ñaaw njort am rafet njort war nañoo saxal kilifa yii moo xam at mu jot la wala juróom benn weer yu nekk la wala ñetti weer yu nekk la ñu daje di def lu mel nii di sàkku ñaan kon daal loolu mooy li nga xam ne man moom lay dugal ci waxtaan wi di gërëm bu baax Thierno Madani ak ñi nga xam ne ñoom Tidiane Anne ñoo ko fi toogal di gërëm bu baax a baax a baax nag ni ñu ko waxee sànq ñi nga xam ne ñu ngi jóge Koungheul ñu jóge Louga di gërëm waa Jamra yi moom Bamara Gueye toog mi allahumma salli ala sayyidina muhammad xaatimi nabiyina wa imaamil mursalin